bii nga xam ne gis nañu président Macky Sall def ko ak élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak nervi yi nga xam ne moom la gars yi di jokkalante soo mooy tuule musiba ma bu kumba gu rëy dina xew ci réewum Sénégal yéen a kaay gi di Sud ko xëy wax ci lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi ak violence bi nga xam ne moom lañ ci nemmee ko ak lu jëm ci wàllum accord yi nga xam ne ba léegi gouvernement bu Sénégal maanaam wàccewul ak moom moo tax jàngalekat yi nga xam ne ñoo boot ci kuréel gi di 16 e ñoom fas yéene nañu dem ci li nga xam ne mooy ab grève yéene kaay gi di wal fajri nee na réew maa ngi toj te nag ki nga xam ne mooy ministre Antoine Diome ministre de l'intérieur kenn gisu ko dafa ne mes ne mentaña yow violence yi nga xamante ni nervi ñoo koy teg askanu Sénégal kenn déggu ci ministre Antoine Diome ak ñu bari ñi nga xam ne lap nañu ci géej gi ba faatu Antoine kenn déggu ko ca ak ñu bari ñi nga xam ne rey nañu leen ci réew mi Antoine Diome fan la nekk loole la journal bi di wal fajri xëy di laaj yéene ne moom la wax ne moom lay def lépp ay caaxaan la te nervi yi nga xam ne moom la Macky Sall àndal du dëgg du yoon waaye nag dafa am loo xam ne Macky Sall ba léegi xamu ko Macky Sall bu xamoon li nga xam ne moo koy yott dina bàyyi limu muy yotta daw loole kàddu yi Mamadou Diop Decroix la yéen a kaay gii de la témoin ñu xëy fekk fa ma mu Mamadou Omar Ndiaye mu xëy jël xalimam di yedd Macky Sall ci dàq gi nga xam ne dàq na ko général Tine Mamadou Omar Ndiaye lam ko xamal nee na ko gouverner daal maanaam du humilier gouverner maanaam jiite du toroxal nag ñi nga xam ne ñooy saw askan ndax ki nga xam ne mooy général Tine mi nekkoon au commandant de la gendarmerie lu ci waay man na réew mi liggéey boo xam ne bu mucc ayib la ndax nag Macky Sall lenn lu fi ñor koy màcc ba muy ki nga xam ne mooy général Tine daal di koy dàq effet immédiat ba pare muy ko sax laa la waxante ni muy tàggoo wala sax xanaa mu bàyyi ko mu def passation de service amul lenn loo xamante ni Macky Sall daal na ko ci def te nag serviral na réew ñu en tout cas général Tine daal mi nekkoon au la gendarmerie en tout cas ko fulaak fayda la am na benn haut gradé nee yi nga xam ne moo fi weesu woon général Tine am na taxawaay boo xam ne taxaw na ko si gis nga taxawaay bi nga xam ne général Tine taxawoon na ko bu ko juddi futuna maanaam Sénégal mooy tàkk Sénégal mooy dugg ci kaawa yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu mouvement adu wuru suugi ñoom nag nee nañu danañu porte plainte maître Moussa Bokar Thiam ndax nervi yi nga xam ne ñoom la ñu recruté wuñu maître Moussa Bokar Thiam la ñu ko tuumala yéen a kaay gi na ñi nga xam ne ñooy waa Yaana Mara ak Fouta Tampi ñoom jour ñu fayu léegi nag coup par coup rek ba ñu duñu ci lan ñi nga xam ne ñooy Fouta Tampi ñoom nag nee nañu danañu daal di porte plainte mbir mi nag danañu porte plainte ci Sénégal danañu porte plainte tamit maanaam bitim réew yéen na ñi nga yi bëri na loo xam ne mën na koo yàq ci sunu démocratie ak paix sociale bi nga xam ne ñoo koy dund ci réew mi yéen kaay gi de réew mi quotidien maître Djibril Wara bu APR nee na nervi yi nga xam ne moom ngeen gis ay militant tribunal ñu xëy fekk fa waa PDS ñoom nag ñoo ngi avertir nga xam ne mooy Macky Sall ñoom nee nañu duñu nangu benn yoon élection présidentielle yu 2024 ñuy nga xam ne mooy Karim Wade yéene kaay gi de Le Quotidien avion présidentiel bi nga xam ne njiit réew mi di Macky Sall jëndoon na ko ñi nga xam ne ñuy waa FMI ñoom nag daan nañu rafetlu bu baax a baax transparence ak opération bi nga xam ne la ñu sa amal li mooy marché public yi ji gré à gré bi ma ngi mel ni gi di réew